sëñ bi wolof Merci. merci beaucoup kon nag euh, mbokk yi tey jii amaat nañu ndaje fii ci palais de la république muy ndaje boo xam ne amoon nañ ko nege nii ci atum deux mille vingt et un weeru décembre ñu doon waajal coupe d'Afrique des nations yàlla def at moomu bi ngeen ñëwee ma jox leen drapeau bi daal di leen jox aussi ay yëbbanti mooy football bu rafet am na solo lool waaye amul njëriñ toog tey jii d'ailleurs ñu ngi jaale maa ngi signé léegi benn lettre de condoléance jëmale ko ci chancelier bu Allemagne ginnaaw bu Frank Beckenbauer wàccee liggéey ñu ñaan yàlla mu xare ko aljana mu nekkoon footballeur bu xarañoon amoon fulla nekkoon libéro bu dëgër moom ak gert milleur ci atum 1974 génération boobu ak ñi toppoon ci ñoom ñoom Rummenigge loolu day wane nit ki fi nga nekk di liggéey da ko war a fonk wane ngeen ko nag ndax boo leen ko defuloon kon deux mille vingt deux doo leen gagné coupe d'Afrique des Nations xeetu footballeur bu ne am nañ ko Sénégal waaye nag seen xarañ yéen la yàlla may ngeen may ñu la première fois dans notre histoire la coupe d'Afrique des Nations ba tey équipe boo leen di dajal du nelaw di xalaat fu may jaar wala nu ma si muccee pour génn honorablement kon nag bu leen yërëm affaire yi bu football bi neex ba ngeen naan noo c'est assuré amul assuré da ngeen di dugal but yu bëri dès le premier tour pour vous mettre à l'abri bu ko yërëm faut bien taper bien marquer won gaañu ne yéen leen mën c'est comme sax kon maa ngi leen di ñaanal yàlla mu jàppale leen Sénégal yëpp a ngi leen di ñaanal parce que yéenay suñu yaakaar yéenay suñuy gaynde te it seen rak yéen la ñuy xool ba ngeen gagné ñoom ils sont allés gagner kon loolu dangeen ngeen war a nekk tey ay modèle pour le peuple sénégalais li ci des nee na état bi dina liggéey ak fédération liñ ko defee boobu léegi te boo leen gisee résultats yi yëpp aussi c'est le fruit d'une politique et d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement et la fédération et puis ñu may leen temps ñu liggéey ñu may entraîneur bi temps mu liggéey parce que qu'on ne peut rien faire dans la précipitation parce que avant lu xewoon dañuy dem match ñu perte ko on renvoie toute l'équipe on renvoie l'entraîneur at ñëw na fi c'était quand même premier ministre mais dañu dàq président fédération dàquñu ko mais dañ na ko rek si njëkk nga si njëkk rek dimbale ñu nga dem parce que vraiment mën a toog fi toog entraîneur bi noonu ndax coupé contrat bi ndax tout le monde loolu mën mënuñ si liggéey lu lu mën a am njëriñ donc on a été patient on a construit une équipe aujourd'hui qui a fait ses preuves qui la meilleure d'Afrique donc elle doit juste confirmer ce titre soo leen ko defee seen jaan wàcc na bu leen neexee yeneen coupe d'Afrique yi xëy na dinañ taxaw waaye mën nañ xaar beneen génération mais vous votre génération votre génération aura fait en tout cas aura assumé son rôle historique kon nee naa nag ku def lu rëy am lu rëy am na lu ñu waxtaanee déjà ak yéen ak fédération ak ministère waaye nag nee naa boo leen ñu indilee coupe bi moom dangeen ngeen am raaya boo xam ne ak neexal boo xam ne bu mucc ayib lay duñ ko duñ ko fi wax nag dañuy xaar ba ngeen dellu si ñu dajawaat fii incha allah feetewaat ko sargal leen kañ leen kon loolu mooy yóbbal bi boo leen demee xam leen ne peuple yëpp a ngi seen ginnaaw c'est un jeu collectif un jeu offensif efficace qui marque des buts parce ku marqué bi bii mënoo dem final mënoo gagné ko faut bien défendre mais il faut marquer donc euh, el tactico loolu nag xam jox nga leen yóbbal yi war Kalidou va bien défendre euh, les camps avec ses gardiens mais le milieu et l'attaque ci kanam jërë ngeen jëf yal na leen yàlla jàppale may leen ndam voilà